yéen mbokk julli mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di siyaar bu baax di laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram rawatina ñi nga xam ne ñoo ñu bokk xaadimal Moustapha mi nga xam ne yàlla rek moo ko a fayal man nag feebar bi am na ñoo xam ne sax ndeysaan lu bon bon maa leen tane ci wet ndax man wax dëgg yàlla ku ci mel ni ajaratu moomi kebe jàmbaari Serigne Saliou Mbacke ji tey suñ ko bërile woon suñ man amoon suñ maanaam maanaam lu mat fukki moomi kebe daal xam naa ni feebar bii. ñu ñu koy ñu bëri buñ ko yëgee yëg gi du demee noonu kon ñu ngi ñaanal soxna Momy Kébé bu baax di ñaan yàlla guddal aw fanam te wéral ay cëram ndax baax ak baaxam man duma ko leen ndax fenn Momy Kébé xamuma cent pour cent jaxasoo yenn jaxasoo yi mu yëkkati xaalisam di ko jox kon kooku ak baaxam man ñu koy nattal du ma ci bokk ñaari yoon may na ma ko deux cent yoo xam ne deux cent yu njëkk yi moom ca laa xam ne kiris ker jàgg moom aw ko du ma ko seetlu fenn ma ko ndax booba booba booba ñu yëkkati ñeent fukk junne may ma ca bi màggal Kazu Rajab yi di jub si ma def sama vidéo boobu ni bu buñ bëggee fomm màggal geet buñ fomm wayaan mi mu yëkkati deux cent mille jox ma yoo xamante si maa ngi moom jàkkaroon ba fii may wax yow kon kooku ak baaxam man ñu koy nettal bi du ma ci bokk kon ñu ngi koy ñaanal da sëñ Fallu Mbàkke waxoon ndax sëñ Fallu dañu ki def lu baax jëru ñaana moo ñaana boppam bu loolu weesoo ñu ngi sant Sëriñ lay Jaañ di ko ñaanal ndax doomi dëkk bi la Tuubaa gii la juddoo ba màgg yàlla dogal teraanga dab ko toxut mu fàtte nit yi démbam tox ko changé tox koo bew tox ko fuy changé wut benn jëm jën boo ko gisee kanam gam la woon rek moom la lay woon moom itam ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla guddal aw fanam te wéral ko ci barke Serigne Touba Mbacké di ñaanal Serigne Makhtar jën ndax sama xarit la sama wëllëre la ñoo bokk benn koñ bu ñu gënee àddina moom itam wax dëgg yàlla bu euh, maa ngi koy sant bu baax. di ko gërëm di ñaanal yàlla guddal aw fanam te wéral ko ci barke borom Tuubaa di ñaanal waa kër sëriñ Fallu yi nga xam ne aw ma nag lu may ñoom ñoom sax a njëkke maa ngi jéggalu bu ñaanal sëriñ Maxtaar Mbàkkeem sëriñ Modou Boussa Dieng di sëriñ sëriñ Cheikh Awa Balla yàlla guddal aw fanam te wéral ko di ñaanal ñëpp daal ndax bu ma limee damay am jafe-jafe ndax damaa bëri ay soppe bëri ay wóllëre di ñaanal waa kër sëñ basum sëñ Modou Boussa Dieng ko ci mel ni Cheikh Abdou Mbàkke ak sëñ Fallu di ñaanal ñëpp sëñ Seexuna Mbàkke Ridis moom itam ndeysaan dana boole ci boppam ndax bu ñëwee fii moom ñoom moom mag ñoom moom ñooy bokk lépp ñooy bokk añ di bokk reer di bokk di waxtaan te loolu lépp moon na ko ca bañ a fekk oyofal boppam bëggal ñu boppam maaseeg ñun di ñaanal sëriñ Lamine Mbakke ca Ndindi di doomi ndey sëriñ ci xumi nga xam ni moom daal mënumaa wax ci moom ndax day kenn ci man waaye nag ñu ngi koy bàyyi yàlla